bi ma commencé tëgg sabar nag yàgg naa mënuma la wax at bii la mënuma la wax at bii ndax damaa judd rek daanaka tëgg ndax damaa bokk ci famille tëgg judd ci famille ngéwël waaw xam nga olof Njaay nee nañ loo doon mu dëgër te lim tëgg du dama cee dugg dama ko donn dama ko doon samay maam sama côté papa du tëgg du ñu tëgg mais géwël lañ mais sama côté yaay ballanaar mbeng mooy suma maam alaaji yëmmu góor sekk papaay ñoom baakan mooy suma maam kon man dama war a tëgg damaa war a tëgg damaa war a way mais sa njaay gawlo moo jur sama yaay waykat la du njaay mbeng suma mag la daraan tëgg day way kon man bu ma tëggee waru jaaxal ku ne ndax damaa judd ci famille tëgg Habib Mbeng mu Serigne Babacar moo a jàngal tëgg sabar moo ma yar ci tëgg sabar bokk euh, gis nga nit ku ne yàlla moo lay def sa destin du sa yaay woykat la rek danga war a way sama yaay ku ko dàq way Sénégal est-ce que mën a woy may sa njaay gawlo li li askan wi bari bari bari yëpp ay sëtam ñett rek a ciy woy sama yaay du njaay mbeng ak Njaga Mbay Njaga Tabara doom maama wa sëtaatam sëtaatam mi ngi way wayu jàng muy ngañ baay moom da ko doon ci côté papaam mais aussi doon na ko ci côté yaayam ndax may sa njaay gawlo mooy moo jur maamam du sa yaay dafa war a way rek nga war parce que loolu yëpp don la di nga gis sa papa daa xaway ci àdduna Youssou Ndour ku ko daa xaway ban dooma may way Thione ku ko daa xaway ci àdduna benn doom bu mën a way la am muy Waly Ballago Seck kon nga xam ni yàlla moom mooy mooy tëralee lu ko neex. loolu <laughs> yàgg na nag même am na benn jour maa ngi dem euh, France maak Lamine Naar doomu coon ma ne ko Lamine Naar kaay mu jël chaise ma ko toogal mu toog ma ni Sénégal léegi dama bëgg mu leer parce que salon yeeg koñ yeeg ñëpp di daan xuloo Lamine Naar coon Seck ku jur Lamine Naar coon maak Lamine Naar bu coon ñoo bokk turandoo. ndax suñu turandoo dafa baax dafa baax torop kër geewal bo dem ak kër ku baax ko dem Lamine nar nga fa ba loolu mo wara ñu naan Lamine nar bi bu nday mari ndjay coono ko jur non non dañu bokk turandoo man ak mom euh, wa sama yaay nak mom sama complice la won ndax man musuma neub dara sama yaay mom sama xarit la won dama ko daan wax sa nag sama gel nga parce que sama gaañ la woon nday mari mësuñu comme dara lu ma lu ma metti ak fu ma mënti méttee du ma ko nëbb sama yaay moom sama xarit la woon sama yaay la woon mu nekkoon nit ku baax xoolul lu ma am damay jóge léegi Hollande tey indi ay million yu bari moom xoolul lu may indi que Serigne Baara. Lamina sa dese yaay fekk la fi. waaw nan nga ko dundee bañ la ko annoncé. waaw ah, ni ma ko dundee loolu moom ñaanuma yalla sax di ko wat ndax xam nga li ñaan dem xare ji ki na lam waynako dama xare sama mak xam sunu ñaar yaay ya nday ak baye Mor Kumba moo ma ko mu nek lu tis nek lu metti lo xamni damay ñaan yalla ñi fi seen yaay nek no metti na dal nah xam nga yegg fi nga war a joué sa hotel di nelaw nga yeewu am nga am nga yek yek bi nag ndax waajur dafa fort am naa yek bi ma sama parce que ni ma tukkee non noonu jour boobu mosuma tukkee noonu am yek yek bu metti sama xol tëdd di nelaw sept heures du matin sa téléphone di sonné nga ah dañ lay sonal rek dañ lay sonal rek ma jékki-jékki ki ma tëddaloon Adama Bey yi ménageur waali bu dama gawlo sa téléphone ngi sonné de ma xool mu nekk privé ma ne ko ah man de dama ragal privé na ko sama yaay numéro privé la ma ne ah garaawal sama mag woo ma ne ma Lamine ma ne ko ah mu ne ma góor nit bu am fulla nga nit bu am pasteef nga li ma lay wax ne dafa wax rek ma ne ko sama yaay dafa gaañu mu ne ma waaw yaay yàlla jëlee na ko fi léegi mu nekk lu metti loo xam ni bëgguma sax di ko fàttali bugguma bëgguma sax di ci wax waaw lu tiis. Euh, jour bi may voyage ñu ngi tëdd ni mu ngi tëdd nii ma defar sama bagage ñu jëndal ko yàpp ma jox ko ne ko lekkal mu ne ma non lekkal ma ne ko voilà mooy suma frère bii kii moom moo moo ma moo ma tàggee suma yaay euh, léegi ñu toog mu jox ma ma lekk ma jox ko mu lekk mu siggi xool ma. ma ne ko nday mari lekkal waaye parce que boo lekkul du ma dem tukki de munu ma noo di nga tukki nag di nga dem de parce que dafa am lu may lijjanti te fi mu ne nii dama banque il faut nga dem pour ma mën a am xaalis bi may génn ci biti bi maa ngi yor sama bagage ji génn maa ngi koy dégg ci parenteer bi mu ngi naan suma benn sœur Aïda Diop naan ko sama doom ju baax ji de mi ngi dem waaye xam naa dootuñu gisee mu mel ni dañ ne ma bul gestu ma offensé rek continuer boobu la mujjee wax biñu la une semaine avant moy lakh bobu dara ñu ngi euh ci salle bi man ak mom ak job fek sama mam si la gennon aduna bal nan mbeng ma borom keur bi ñu tok ma sama papa bi mu deewee dëjëm ba reuy may sa ndjay gawlo waye lenn rek la lay la lay Lamine nar manuko lan la mu ma xamna ni sama dom nga ta xamna ni da nga am ful te luma la wax ding ko fonk ma ko waaw ko la ma su sama dëj bu mu wessu ñetti fan na nit ñi lek ba suur ñu naan ba mandi mais buma kenn toogaanu lenn rek la lay ak lan mu ma gis nga nima melni yow non la bëgg nga mel ko lan ma fonkal adama lo am nit del jox adama yu ñu joxol ñepp cër te bul nekk nafiq loolu la ma mujjé wax. wa bima koy biñ koy denc nak loolu lu lu fort la lu metti la lu tiis mais bobu yalla day ñew rek taxaw lu mu metti metti dina xaw am ben yermande bu muy def parce que bu ko deful won ndax kenn du tim sa yaay mom di jël souf di ko sotti sa yaay loolu lu metti la ci aduna mais. ñëpp dañ ne ma yow sa yaay daf la bëgg yéen ñaar ngeen rek ci àdduna sa rakk bu jigéen faatu Guewel ak yow te Fatou Guewel jigéen la mënul tiim sa yaay di ko dugal ci pax mais comme yow sa yaay bëgg na la bëgg goo xam ne ci àddunaam boo ko tiimee xolam sëriñam moo ma ko wax Cheikh Mbacke Fall moom it maa ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjanay si yokku leeram moo ma ko wax ne ma dugalal sa tànk nga denc sa yaay mu nekk lu metti mais boobu dangay ñëw rek indi yëfi góor indi yëfi njàmbaar comme nee nañ boo ko defee sa yaay dina kontaan man chaque jour mu def mu mu defaan lo xamni daf may def ay ree dafa dem France and ak Sodo Bousso ndeysaan xam nga France goudi amul wax ju bari nday mari wayani ba ñew mok Sodo Bousso taxaw ci benn buntu keur tubaab di wax wax ju bari rek tubaab bi fekk le sepp ci parenteer bi <laughs> jël so ndox rek soti len ko mok Sodo Bousso teel nday mari sigg rek na Sodo Bousso ya ma togn nan ko soti nga ko ku riis ku ndayam gërëm ku wayani ba dag nga jël xaalis bi ni tooyal ko ni sotti nga ko kuris riis moom xam nga dafa neexoon Mamina yan relation nga am ak sa cousin Doudou Ndiaye Mbengue nga xam dafa nekk si aar comme yow sama lepp la mom sunu ñaari yaay yi dañu bokk nday ak papa am di sama mam ñu bok Serigne Touba mu nek sama mag yo xamni sama xarit la wax deug yalla barke serigne Bamba nit kuma fonk tay buma ma musiquee tey du njaay la du njaay motax ma musique ndax man Hollande la nekkon deuk na fa 21 ans la deuk fa bima nekké xalé la fa dem 2000 la ñëk ñëw Sénégal mais buma ñëwaan ay 1 mois lay def 2 mois suma ñëwaan day tomber muy nak gëmul kenn nak mom du njaay pour mom Lamine nara dakk teug ci aduna lu muy def suma togul ci ginnaawam du contane te loolu mbokk rek moo ko mën mu nekk mag ju baax mag joo xam ne xoolal lu na laay gisoo bi ma dugg see léegi lu na laay kaf moom lu na laay waxante moom man ak sama beneen frère Ablaye Dieng lu ne lañ koy wax lu ne la ñu moom mu nekk mag joo xam ne daal ku la mooy suñu Baye Fallou famille dëgg yàlla. Euh, Lamine neex Wally neex na leen. duñu mhm. wax Wally dëgg par di ko yedd ak yooyu noonu lan ngay wax si loolu waaw fii moom senegaal la Wally Seck def naa ni am na fulla joo xam ne moom ak fayda joo xam ni fulla ji ci baayam rek moo ne ci moom Wally du ànd ku koy jay du ànd ak ku koy raaw du ku ko wax dëgg bu ñu nekkee këram waxuñu waxu kenn bu ñu waree wax ci cadre liggéey ñi war a toog ñooy toog ñi nga xam ne dafa séq ak ñoom ànd nii am na fu la jot dañu bàyyi faali may leen ma may waxtaan kon bu ñuy wax loolu ñu ngi erreur waali kenn du ko jay waali tey boo ñëwoon ci yow ne ko mu bala tey yow ma ñëw ci moom ne ko mu bala man lay bàyyi man lay bàyyi suba day gën a def ak yow nii barke Serigne Fallou maa ko mag téeméeri junni yoon waruma ko waxal loo xam ni du dëgg li ma ko waxal nii loolu moo nekk ñi ànd ak moom ñëpp. dëgg lañ koy wax te moom du def deful loo xam ne sax dañ ko war a téye di ko naan ko ay defal li parce que moom li mu war a def xam na ko waali li mu war a def xam na ko waali xam nga boo koy yedd xam lan nga koy yeddee naan ko nii saay bàyyi football bi man ñooy ko di kaf bàyyi football bi toogal waykat nga loolu mais pour naan ko ay bu defal li ak dim moom li mu war a def xam na ko bu baax a baax a baax a baax soxlawul kenn ku ko yedd kenn ñëpp ku mu nekkal dëgg rek nga koy wax ak fulla ak fayda ndax moom ci loolu lay dox dañ gis nañ orchestre ramdaan da ngeen a bari ay batteur tëggkat safari bari nañ torop torop xëccoo micro ba ne fa waaw ah aduna ni mel bari gi bari nañ masha allah mais xam nga borom bis bi ki waral coow li muy coon sekk moom laay wax parce que bu njëkk orchestre benn tëggkat sabar rek a daan njëkk indi ñetti tëggkat Wally ñëw indi six tëggkat moom dafa bëgg partager mais xëccoo micro yow da fa gis. kan ak kan ay xëccoo. gis ku commencé taxasu jékki-jékki kee këf këppale mbaa ngay taas bay débordé Wally këfaat la. waaw waaw ku bëgg a déborder moom mu mu teg la sa place ku bëgg a déborder mu teg la sa place mais foofu ñaari waxkat rek lañ fa am Mbaye si njaay ak Ameth Thiou ñooy wax de ñoom nga bëgg a xam ne ñooy xëccoo soo fekkee laminaar di tëgg boo mënul ñëw ci ginnaaw jàppale ko non bu taxaw ci ginnaaw di ko siif boo fekkee waa 5-5 di tëgg boo ko mënul boo leen mënul jàppale non bu leen ñëw di siif boo fekkee waa kër du Ndiaye Rose di tëgg Ndiaye Rose boo leen mënul cëral ndax seen maam ndax ñoom te tey tëgg fu mu mënti àgg ci àdduna grace à Doundiaye Rose nan ko ko di ko ñaanal sama papa jooju nga xam ni moom ma yar moom ma njëkk yóbbu ma tukki bi ma yóbbu ma tukki neuf ans la am xaw ma an ans barke Serigne Bara yóbbu na ma fu ne ci àdduna ma koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana firdawsi yokki leeram ndax tey bu tëgg avancé wala tubaab bi ngay dem di gis sabar Europe grâce à Doundiaye Rose ay fameem dañ leen war a cëral ci lépp nag bul xool na ñii ay xale lañ léegi wala ñii ñoo fi nekk non dañ leen di cëral ndax Doundiaye man da cëral naa leen ndax seen maam lu ma am ginnaaw yàlla ak suma yaay suma pàpp ak sëriñ Bamba mi may yaakaar moom la. artistes surtout yéen tëggkat yi. Doudou mm. Ndiaye Rose jooy na ko ba dee newoon na bu deewee bu kenn tuddee monument. Mm. gis nañ bàyyi dañu bàyyi ba mu décédé ñu am benn rond point bu ñu ko tuddee buntu euh, RTS alors que ne bi muy dund fu ne yóbbu na fa sabar mais valoriser ñu gëdd bi ko européens yi joxe woon joxoon sénégalais yi joxuñu ko woon. Sénégal loolu ñoom loolu yàgg na fi de Kofi Olomide xaw ma Kofi la tudd xaw ma beneen ñàkk bu fi doon ñëw tey nga gis ñu def lu ne. ñu ne tey du Ndiaye Mbengue mooy tëgg fii wala diw mooy tëgg fii ñag boobu di fi ñëw lañuy gën a valoriser du Ndiaye Rose waxoon na dëgg du Ndiaye Rose ñaata kër la am asalem macha allah asalem 6 am na fa kër 5 1 koñ bi tey man su ma amoon dogal ci koñ bi barke Serigne Bamba balaa mu doon génn àdduna koñ bi avenue du Ndiaye Rose lañ ko waroon tudde ndax liggéey na ko fi taxawal na drapeau Sénégal fu ne ci àdduna fu ne fu ne Mitterrand takkal na koy médaille président yi ci àdduna bépp takkal nañ Doudou Ndiaye Rose moom sax jour loolu la bu leen nit ñi cëralul ngeen cëral seen bopp loolu la ñu yoree sama mag gi ne fi Habib loolu la loolu la ñu yoree bu ñu daan tëgg sax boo solee carax sax mu ne la doo ma topp. Euh, yan

bi muy xale ba léegi ci jom la judduwaale ak fulla ak fayda lépp lu ma war sama rak maa ngi koy def maa ngi gérer sama rak gérer suma njaboot gérer suma bopp ñoom nag peut-être amuñu jot dañoo ñàkk jot mais xëy na bu ñu amoon jot dinaa leen gis ni ma leen war a gisee wala ma leen dégg ni ma leen war a déggee mais xëy na jot moo amul di leen ñaanal aussi yàlla defee leen jàmm yokku leen parce que comme ay artistes lañ peut-être jot moo bariwul rek moo tax waaye man moom des fois na len deg des fois du ma deg dégg wax deug yalla parce que yalla mom dafa bëgg deug rek la bëgg bon da ngay tok ñaata temps do gisante ñom non dina yag parce que wax deug yalla dina yag man aussi awma jot ndax budé man la rek euh, awma jot ma ngi sama liggéey waaw wax dëgg yàlla aw jot na tok lu yag du ma leen gis na tok yag yàgg du ma leen dégg wax deug yalla jot gi mom mo amul rek. mais gisoo yow. peut-être xale nga yow la fi sa yaay bàyyi ñu war la ko xoolee ñoom ni ñu meloon nag sa yaay ñoom war nañoo ñëw waaw mooy li ma la wax rek ñi li ma la wax rek peut-être dañu amul jot rek jot gi rek leen tënk ak liggéey yu ñuy def mais peut-être bu nu amoon jot dinañ may dinañ ñëw di ma nemmeeku di ma seet mais peut-être dañu ñàkk jot euh, waaw mu nekk euh, lu ma metti dëgg yàlla lu ma tiis ndax euh, jëkkëru Ami Collé suma frère la suma frère la Ndiaw suma frère la yaayam ak sama yaay ñoo bokk yaay Ami Collé peut xale la ndeysaan def na erreur mais. nit ku dul juum amul ci àdduna nit ku dul juum peut-être moom bi muy wax loolu peut-être sax ay kaf la ko jëlee waxew ko dara mais aussi jiitum réew Macky mooy suñu président ak lu mënti xew rek nañ ko cëral respecté ko xam mooy kan Ami Collé noonu mu waxee sax du moom barke Serigne Bara nit ku ne da nga koy waxal jikkoom ndax nit ku am yar la ba pare day tollu ay moment yoo xam ne yéen ma gën a xam du fi nekk di ñaan maki rek ak soxna Marème Faye Sall jigéen la ñu ñaan suk suñuy oom artiste yëpp man Lamine Naar maa ngi wax ci kàddu képp kuy tëggkatu sabar di di wax di ñaan Macky Sall mu baal di ñaan peuple Sénégal mu baal di ñaan justice bi mu baal di ko wax nañ ko jéggal nañ ko jéggal te xam ni nit ku dul juum amul erreur la def ndax njiitum réew mooy sunu njiitum réew mooy sunu yaay mooy sunu papa Macky mooy sunu yaay mooy sunu papa sunu président na ñu ngi lay ñaan nga baal Ami Collé baal ko te xam ni xale la dafa juum erreur am na dootu ko defati ci àdduna ñun ñëpp ñu ngi booloo sukk di la ñaan nga baalal ñu Ami Collé ci kàttanu yàlla ak baaxam yow nit ku baax na